adduna reyante lañ koy amee da ngay xeex ak nit xeex ngeen Victor Hugo di wax ceux qui luttent sont ceux qui luttent sont ceux qui vivent ñii dem ñenn dundul lu dul ñii lutter ñii xeex di bëre ndax adduna noonu la noonu la ko yàlla bindee dañu ne arab yi dañ ne man yàlla naa la ku wëndeelu am dara man ci sara ay sara ku am fit da nga am loo denc man xaaba xaaba ku ragal nag da nga sooy da nga perte